démb le 21 février atum 2023 ci réew mi di Mali dafa amoon ay soldats MINUSMA yu bokk ci organisation des nations unies bien sûr ñu yor ay casque bleu dañoo nekkoon ci dëkk bii nii di Ouagassogou ak Sévaré li nga xamante ne moo leen fa yóbbu woon nag mooy ñuy joxe ay ravitaillement bi nga xamante ne joxe nañ ay ravitaillement ay ravitaillement ba pare jël seen oto blindé di ñibbi ñu dal ci benn bomb boo xamante ne dañ koo suuloon mu nekk bomb explosif biñ ci dalee nag malheureusement am na ci ñetti ñoo xamante ne ci saa dañoo ñàkk seen bakkan te ñi ay sénégalais lañ am na ci juróom ñoo xamante ne nag am nañ ci ay gaañu gaañu visite bi nga xamante ne le roi Mohammed VI mi ngi koy amal ci capitalu Sénégal bii ni Dakar bokk na ci point yi nga xamante ne gën na ko yiiteel mooy jeune africains yi nga xamante ne dañuy ñàkk seen bakkat ci géej gi wala désert bi ngir di yegg ci réew yi nga xamante ne moo di réewu tugal yi dinaa leen tënkal li nga xamante ne jot naa génn ci actualité incha allahu taala léegi-léegi lay doon après la publicité Immobilière Diaspora Sopnavi, di expert en transactions immobilières, leader dans le secteur de l'immobilier Fitiches, Moulin dit proposer cinq volets de services. la vente et l'achat de terrain la construction et la vente de villas type F2 F3 la gestion de biens immobiliers la promotion immobilière et la consultance qu'il s'agisse d'achat ou de vente de terrain terrain terrain terrain F2 wala F3 xoolal agence diaspora Sopnabi. Nous kat am une maîtrise du marché am connaissance du marché local war la mën guider taxawu la la ci projet à l'agence immobilière Sopnabi, nous nous engageons à vous apporter un suivi de qualité de la réactivité et de l'honnêteté pour que votre projet devienne une réalité afin de vous proposer la solution immobilière répondant au mieux à vos besoins et aspirations l'agence immobilière diaspora Sopnabi prend le temps de bien vous connaître afin de vous permettre de faire le meilleur choix adapté à votre situation képp ko doon bëgg terrain bëgg souf, bëgg kër wala nga am ay terrain bëgg ñu jaayal lako ko loolu suñu liggéey la té dañ ci honnête lool mën ko lool ñëpp nous sommes sur les deux voies de à l'immeuble Sopnabi, villa numéro 107 à quelques mètres du rond-point de la ZAC de Ngent. mën nga ñu wo ci 77 094 83 30 77 094 83 30 ou le 77 244 15 45 77 244 15 45 agence immobilière Diaspora Soprnabi Damalena Nao, dama Sentir Sentir naw jox leen Tessel. yeen ñu doon laajte gamme de haute qualité des produits de classe des produits de marque des produits de dernière génération yeen ñi doon wër produit aloe vera yu baax yi disponible na ci nabi Boutique bépp façon crème de aloe vera moo xam Mind Master liquide extrême wala sax Vita active bàyyiwul dara yéen ñiy jàmbat problème mu ndigg wala yax yuy ruux wala sax léeg-léeg sa wee di teggeeku contactel Nabi Boutique même su fekkee da nga bëgg perte pois jarul ngay régime contactel Nabi Boutique mu jox la ci aloe yu baax yi danga nga bëgg am teint bu rafet ba ku la gis sopp la Contactez Nabi Boutique numéro de téléphone 0039 375 735 34 51 ma Touko 0039 375 735 34 51 Moham yagi yaa Europe ou yaa Sénégal boule hésiter contactel Nabi Boutique avec Nabi Boutique aajo yëpp ay faju ak gamme produit yu baax yi. dama la vous ko yon ngiropo wala sax la fay dépendre ci waxtu yi nga vidéo comme ni bien sûr ci introduction bi mardi bi ay soldats casque bleu yu bokk ci organisation des nations unies daño demoon ci réew mi di Mali mais particulièrement nak daño nekkoon ci région bi nga xamantene modi moo di Ouagadougou li nga xamantene mo moo leen fa yobbu nak bu ngeen ko bu baax ba baax réew mii di Mali dafa am ay jafe-jafe ci jihadistes yi nga xamantene dañ fay nekk te léegi-léegi ñuy song askan bi bi nga xamantene lolu amna nak ci lañu organiser ben forme de soldat arme ñu tudde ko MINUSMA MINUSMA boobu nak ci lañu jël ay soldat yo xamantene casque bleu lañ ñuy jóge ci réew yu bari bari ci aduna bi ñu yobbu leen ci réew Mali ngir ñu maintenir la paix jàppale leen aussi ci jihadistes yi nga xamante ne léegi-léegi dañ leen di song bi nga xamante ne loolu am na nag soldats yi dañ doon joxe ay ravitaillement bi ñu joxee ay ay ravitaillement ba noppi nag ñu jël seen oto blindé di ñibbi bi ñu ba ci dëkk bii nii di song bi yaa ñu yem ci benn bomb boo xamante ne dañ ko suuloon bomb explosif malheureusement nag ba ca pneu ba tegoo ci la oto bi explosé ba ni ma leen ko waxee sànq chiffres yi nga xamante ne moom la ñu wax mu ñetti sénégalais ñàkk ci seen bakkan am juróom yoo xamante ne nag ba jamono ji nga xamante ne moom laay wax yéen nii am nañ ay Gun, gun. secretaire général des nations unies mi ngi ñaawlu jéey yi nga xamante ne moo am ci réew mi nga xamante ne moo di réewu Mali yëmu ci loolu aussi ñi ngi présenté ay condoléances am ci peuple bi ne moo di peuple sénégalais ak gouvernement bu Sénégal yëmu ci loolu aussi wax na ne juróom ñi nga xamante ne jamono ji ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe dinañ def lépp ba bépp taxawaay boo xamante ne war na ci rek ñu taxawu ko ci seen wàllu wër-gu-yaram yëmu ci loolu aussi wax na ne bu ñu jëlee accord yi nga xamante ne moo nekk ci droit international ñi nga xamante ne ñoo suul bomb bi fi nga xamante ne foofu la nekkoon mën koo xamante ne dafa def crime de guerre ba tey mu wax ne dina wax gouvernement bu Mali ñu ubbi ay lanket jéem a leerlu ngir ñan ñoo def jëf ju ñaaw ji nga xamante ne moo waral jëye ji ni am ci. ba ñu fàttali leen ne le det mooy groupe armé bi nga xamante ne moom laa leen wax nii génne woon nañ ci effectif bu toll ci 850 soldats yoo xamante ne ay casque bleu lañ. entre le 16 août ak le 15 septembre atum 2022 durée bi nga xamante ne moom la seen mission bi waroon a am nag benn at kese la war a doon. ba tey ñu jàll ci beneen point bi mën naa wax ne lu toll ci mille candidats yoo xamante ne ay émigré lañ mais nag dañoo bëgg def li nga xamante ne moo di émigré clandestin police algérien ñoo leen arrêté ci frontière Niger ñi ngi nekkoon ci diggu désert bi fi nga xamante ne foofu lañ bëggoon yegg nag mooy ci dëkk mi nii di Assamaka bu ñu jëlee ci données yi nga xamante moom la ñu horizon sans frontière jox wax nañ ne toll nañ ci lu toll ci 41 sénégalais yoo xamante ne ay guinéen lañ 301 yoo xamante ne malien lañ 34 yoo xamante ne yoo xamante ne ay Camerounais lañ ñi ngi nekkoon ci situation boo xamante ne situation bu urgent la ñi ngi nekkoon ci dëkk bii nii di wuyoo ci turu Assama Kan ba tax na bu ñu kàddu yi nga xamante moo tukkee ci buuru Maroc bii nii di Mohamed VI wax na ne réew mi nga xamante ne moo di réewu Maroc dafa nekk prox ndoll boo xamante ne émigré yu baree bari dañ fiy jaar ngir wuutali tugal bu ñu xoolee ci immigration internationale ak buuru Maroc bii nii di Mohamed VI dañ koo considéré comme leader boo xamante ne mën naa jox espoir jeunes africains ngir bañ di topp désert bi wala géej gi ngir yegg ci réew yi nga xamante ne moo di réewu

kaddu yi nga xamante ne yëkkati na ko nag mu nekk kaddu yoo xamante ne kaddu yu yéeme la parce que mi ngi wax ne guddi gu nekk dafay wax soxnaam ngir mu préparer saag bi nga xamante ne moom lay war a téye ngir dem fi nga xamante ne moo di nungu siin mu nekk ay kàddu yoo xamante ne nag mi ngi ko jàllale ci page Facebook am muy wax ne jamono ji mu toll nii mi ngi dund xeetu traumatisme boo xamante ne bu metti la ci moom muy wax ne saa su nekkee ci otoon di dawal wala mu nekk ci mbedd mi di dox mi ngi xaar mi ngi njort aussi ne famu nek di dawal wala famu nek di dox police yi dañ ko fekk ne ko ciix yóbbu ko nangu siin li ci gëna a yéeme muy wax ne goudi bu joté da fay faral di wax soxnam si naan que ndem 21h une heure jotagut le juge du deuxième cabinet muy wuyoo ci turu Mamadou Seck wax na ne waccagut dans ce cas là mën nga préparer sac bi parce que mi ngi njort ne famu nek tok di wax ak soxnam police yi mën nañ ko faa fekk jàpp ko yóbbu ko ndungu siin ñuy fàttali bu baax a baax ne journaliste bi ni di Pape Alé ñi ngi ko bàyyi woon mu am aussi li nga xamante ne moo di liberté provisoire nekk aussi ba tey ci contrôle judiciaire loolu mi ngi amoon le 10 février bi nga xamante ne moom la ñu weesu ba tey bokk na ci actualité yi kaddu gi nga xamante ne njiitu réew bu Tunisie muy wuyoo ci turu Kais Saied moo ko yëkkati kàddu googu nag mën naa wax ne dafa jëm ci li nga xamante ne moo di immigré yi nga xamante ne dañuy dugg ci dëkkam bi nga xamante ne moo di Tunisie muy wax ne immigré yi yàqate gu metti lañ amal ci réew mi nga xamante ne moo di Tunisie yemu ci loolu aussi mu wax ne immigré yi dañuy yokk askan bi nga xamante ne moo di askanu Tunisie mu wax aussi ne violence ak crime yu bari yoo xamante ne ñi ngi am ci réew mii di Tunisie immigré yi bokk nañ ci ñi nga xamante ne ñoo ko waral yemute loolu aussi muy wax ne dina jël ay mesures yoo xamante ne mesure ferme la ngir dakkal immigration bi nga xamante ne mooy am ci réew mi nga xamante ne moo di Tunisie ba tey njiitu réewu Tunisie mooy wax mu wax ne li nga xamante ne moo di immigration clandestine dañ ko organiser ngir jaxase xeet bi nga xamante ne moo di xeetu réewam mooy xeetu Tunisie ak yeneen xeet yoo xamante ne xamul sax fan la jóge ci àdduna gannaaw bu mu yëkkatee yooyu nag ay yu baree baree bari na ci àdduna bi mën naa ci cité ku ci mel ni Ramdan Bet Amour muy porte-parole du forum tunisien pour les droits économique et social mi ngi wax ne kàddu yi mu dégg njiitu réew bi wax ko nekkul dara lu kàddu yoo xamante ne dafa tegu ci wàllu racisme tegu aussi ci wàllu haine boo xamante ne daf ko yëkkati jëmale ko ci wàllu immigré yi waaye yëmu ci moom aussi mën naa ne organisation yu baree baree bari génn nañ di ñaawlu wax ji nga xamante ne njiitu réew Tunisie moo ko yëkkati mu tombe exactement fi nga xamante ne foofu la ñu war a tënkee actualité du jour ñu di leen jox dig daje ba suba incha allah ci yeneen yoo xamante ne dafay concerner monde bi en même temps leen ñaanal jàmm ak leen wax ngeen continuer di ñu suivre ci ñu suivre incha allahu taala ñu di leen jox dig daje ba suba incha allah di leen ñaanal fanaanu jàmm.